mbooloo mi jàmbaare dugg si borom si góor yi surtout ma Marème Sey bi doomi Seydina Ousmane Mbacké Noreyni bi ñëw borom daaru Ceerno Ibrahima Fati yow nga dee nga ma sëñ bi ma baraxaan yow nga dee ma sëñ bi fii di naan keroog bu ma dindoo ci la takku keroog la ba ma xam ne ak lam doon sàkku fekkoon na sax maam bi di ñaan pour ñaan leen yow maa ngi sama ci maam bi la keroog la ba ma xam ne sax maam ba bis ma ne mu suñu daal Ceerno Ceerno Ceerno mooy ne sa Omar mbaa sa ay wilaay yi su ma waral Moussa mu di Aarouna seen mbir ak yooyu ñu duroona Serigne Touba lool na Cheikh Massamba jaat ma bu ma nit doon xam Birahim xam ma Massamba xam naa leen te yéen xamu leen ma Cheikh na xam na ma te xam naa ma li ñu xam ci man te waxu ko yéem na ma li ñu xam ci arab ak jàngu ko yéem na ma xam-xam bi ci moom li muy bari bari teel mu xam ni may bokk xulóom damaa sori maam Thierno maam Thierno ak jaxasoo du ko tere ibaada kenn mënu ko def loolu juróom bi daal naa leen day maal seen dëkk yi daal doon ñu soodaa seen tubaab yi dem leen jéem na leen daal dem ci man maam na bisu bii ci balaay di jëm ci borom daal keroog la sa maam gàttal ci naar ya tasaare nag naa ya teelal muur ملكتني بكونك الكريم من كان لي تفسيرا وتكريما أعطيتني الرد والجال الأكرم عن فعل كرم ودرني بخير عدل سلام بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام صل وسلم وانتخب الكلام من نفاس الخراف بما يفوق ظنا من مراه من عزم الغالب الذي نفاه ومن كفاه زور المدار ولي يا رحمن يا رحيم يا حي يا مر يا مر نجاك مسلما لا مزوج هنا waroon di rëdd ndax ñu ne ko bëgg rëdd par une Thank you. be borom daara bi noonu bari bari Sëriñ bi fooy mbàkke ñu toog mu Serigne Moussa Wade Mbacke xasida muy Serigne Abo di nit bu baax di jàmbaar waaye mbir mi dañ doon doon boppam gis Serigne Mourtala Mbacke mu Serigne Moussa Wade suñu rajo Baara ñu koy ziar bu baax baax Serigne Moussa Mbacke mi ñu toog mu Serigne Moussa Wade mu Serigne Moussa mu Serigne Basirou sa kër maam daa xëyee day ñëw xam ni sax ñu dem di kulli dem na. fii daal di gis rek yaa sa tool ataaliya marka bu mag fii daal di ñëw. siyaare bu baax Serigne Ndiéli ñan kenn la Serigne Touba mu Serigne Khadim ñan ñoo koy siyaare bu baax a baax Serigne Khadim ñan Serigne Afe Serigne Afe ak Souma Awa Bousso maa ngi lay siyaare siyaare bu baax nag ah. Serigne Fallou Mbacke Moubarak Bassirou Moubarak ak Abdourahmane ak Idrissa ñoo bokk lépp xaalis baa ngi ne pour Masakate jaww ji ci jàng jaww nañ ko maa ngi lay siyaar nee na kër la nee moo nee jëfee na lim toll waaye nag marine bi mooy sunu bàjjen sunu yaay soxna Baay Moustapha ñoom ñoo ñu gis ak ay yëpp santaane waaye nag démb Cheikh Mamadou Moussa dëgg ma nañ ma santal koo xam ne nag day génn ci bis bi muy ah jàmbaar bi nga xam ne nag mooy Mody Kenya day dem ci rëy bu ñu teg mën nga ñaareel ba léegi suñu samba ni ma defee jaar wàcc na waaye ñuy nuyu baax naa Cheikh Mamadou Moussa monsieur Moustapha Alain Paar mu ngi toog waaye seen biir nekk keneen si baax mu ngi toog waaye seen baax mu toog moom seen sooy moom Cheikh Mamadou Fadal dem nag ak xaritam dem nag soppe mu ne baax sàmm jàmbaar bi sàmm jàmbaar bi sàmm ñu ngi nuyu wax nga war a toog di nuyu. ndax day doom laay mën a xam ne bàyyi koo

عربا للميل وكل شيء مصار مبارزي والجوار مخبزار ملكت الأرض والدار نهار الله يحيي الأرض

ومسكني لك وديعة الأباد وكذا دنياي ما أخايا ففيهما عن اسرفي رزايا nay sant Sëriñ Saaliw donay yeneen ba moo di seet Ahmadu Bamba Sëriñ Saaliw Mbàkke doomi Seex Bamba sant ko war na Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou du maasum kuy randu ku wet di ña daa dem di lay njël ku yegg am njël tey sant Serigne Saliou Mbacké ku lay liggéeyal noonu koy liggéeyal سري كان كفراني وسيرا سالكا وناسكا والله وجهي مكرمين نفع لخير كل من تكبرا لكن مالي بما لا يرجى إذا سواي ولخير متخا من لا يحبني ويرحم لخير ربي ولخير المنتجب يسوق من سجد في عقدب ردد أبداع الإله والنبي ولا يزال نقي بمسلمين جهاد كبيرا لسواي كل قلب نقى جعاليا غدا waay waay Alpha Fall Ndourou waaye ñuy nuyu bu baax ah ku baax koo xam ne day doon Daaru Muxti day doon Daaru Muxti jërëjëf Fall maam Cheikh Ibrahima Fall nangul Cheikh si docteur Fall Tilal la nee na kon li ñëpp bokk nee na doo mën a tasaare sa jëmu fépp ndax nee na ñoom ñi ku ci ne oh, nee na ñoom ñi ku ci ne am sirif la nga nee yàlla def na benn pas-pas ñoo ko bokk. benn yitte la am bi bakkan bii fiig mi ne ci man ci kattanu yàlla danañ dëggal yëkkati liggéeyub Cheikh Chérif Abdourahmane Fall Tilala bi moo sabab lii yëpp ndax loolu képp lañ ko deseel ndax jël na léppam jox ko maam Cheikh Ibrahima Fall gore lool wutul dara wutul dara du dara luñ koy joxañal ci moomeelam ci kaw suuf. tàggat ñu ci loolu. tàggat ñu ci loolu. ci dox jëm ci sëriñ Tuubaa. ci dox jëm ci sëriñ Tuubaa ak Seex Ibra. ku koy nax. ku koy nax. foofu rek nga koy naxee. su amaan million. su day yàkkamti. day yàkkamti. woo murid yi jox leen ko. nee du nu màggee ci loolu. génn ci ci pas ci ab liggéey ci liggéeyam nee na kon ñu war a takkuwaat te fas yéene dox jëm ca loola kon Cheikh Murtada nee na waaw góor nee na yow day yaa ngi góorgóorlu de ndax la sa baay joxoñ rek ca nga ne ña fekkee démb takku woon nekkoon ci liggéey bi. ñun ñii takku woon nekkoon ci liggéey ba. gis fa mu tolloon. gis fa mu tolloon. ngay jéem. ngay jéem. booba amoo dara. booba dara. mënoo dara. buñ daan daje ku ne day ngaf nga fi am loo cof foro ñu sosoo ko. nga ne ci ndogu yi. ba ne la Cheikh Mourtada yaay borom ndogu yi. man Serigne Abdou Aziz. man du ma digge mukk du ma dindi mukk waxi Cheikh Sérif Abdourahmane Fall Tilala nee na damay dëggal waxi Cheikh Sérif Abdourahmane Fall Tilala nit ñi nag sëriñ bi nee na nit ñi nag dañoo baaxoo dañoo baaxoo fu ñu gisee lu baax fu ñu lu baax allahu akbar ñu ñu jëm koo xajamal man ko fonk guddi gii laa guddi gii laa muy guddi Sidi Birahim ndax damaa fekkee dund ko dund ko ak naar bi kon Cheikh Mourtada boo defee lu rafet lii. kenn wax ne. bu kenn wax ne. guddi Cheikh Ibra gi guddi Cheikh Ibra gi. bu ndogu yi du ndogu yi. xaj na ci guddi gi na ci biir guddi gi. kon góorgóorlu. te doxal te doxal. te dem li am solo li am solo. nee ma jàkk rek nee ma jàkk rek. li ci des bàyyi ko. oh. allahu akbar dëkkal waaye jamatug soxna Bintu ku jigéen gépp nee na du ma lim ku lim juum waaye xam nañ ñoom samay rakk lañu ñii di samay mag. sëñ bi nee na daanaka nii rek la ko defoon daaw sëñ bi nee naa naa fi de nee na ndax ku xam dayo bi guddi gi am sëriñ bi nee na daanaka nag damay tënk far ci lépp nag lépp ma tënk nee na seex saak taalibe ña ngay rang di siyaar si mbokki naar yaa nga fa di ko xaar Modou Kani sama waay la jàmm ñal jaara busub wala mañ se bi jaara